mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ay fanweer ak juróom benn ci suratul ahzab ay 36 bi wa ma kaana li muminin wala mumina إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kon incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سن بروم مني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة du nekk mukk ñeel benn julit muy góor wala jigéen bu gëm ida qada allahu wa rasuluhu amra su dee dafa dogal yàlla ak yonenti yàlla benn mbir ay yakuuna lahumul xiyaratu min amrihim mu ñuy amati mu nekk di leen ñeel ak tànn ca seen mbir ya wa man yaasi llaha wa rasula koo xam ne daa mooy yàlla ak yonenti yàlla faqad dalla dalalan mubina kooku day sànku na sànk goo xam ne gu leer la wa is taqulu lilladi an'ama allahu alayhi fàttalikul bi ngay wax ca ka nga xam ne yàlla daa xiiwal ci moom wa an'amta alayhi yow it nga xiiwal ci moom naan ko amsik alayka zawjak naan ko jàppal ci yow sa soxna si wattaqillaha ca nga ragal yàlla wa tuxfi fi nafsik booba yaa ngi nëbb ci sa bakkan mallahu mubdihi loo xam ne yàlla dana ko feeñal wa taxsha naasa ngay ragal nit ñi wallahu axaqu an taxshaahu te yàlla gënoon a yey ci nga ragal ko falamma qada zaydun minha watara bañ demee ba zayd jeexal ci moom sowxaam ay aajoom ba mu amoon ci soxna sa zawajnaakaha noonu lañ ko may noonu lañ la mayee soxna soosee li kay la yakuna ala almuminina xaraj ngiree mu bañ a ñeel jullit ñi benn xat-xat fi azwaaji adiyaihim ci soxnay ñañuy woote woo ay doom ida qadaw minhunna watara su dee dem nañ ba jeexal ci ñoom sawxa bañ amoon ci ñoom wa kaana amrullahi mafula nekk na mbir yàlla loo xam ne lu ñuy def la mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax fii ni ab jullit mooy ki engagé boppam ci diine yàlla ji jox ko bakkanam jox ko njabootam ak alalam loolit lam cay xaar yàlla wax na ko te mooy inna allaha ashtara min almuminina amwaalahum wa anfusahum bi anna lahumul janna jullit ñi day yàlla jënd na ci ñoom seen bakkan doonte ne cosaan moo ko moomoon jënd ci ñoom seen alal doonte ne moo leen ko wërsëgal ngir da leen dina rafay àjjana loolu moo tax ba ab jullit bu yàlla demee ba dogal benn mbir mbir moomee lu mu jafe-jafe ci yow loo ko ñàkk ñàkk comprendre du dagana ci ngay hésiter naan ndax naa ko defam bu ma ko def loolu la yàlla tere yàlla waxul na ñu bañ koo def waaye def na ñuy hésiter sax warut ñu taxaw di def xiyara naan damay defam du ma def maadaama yëg nga ne ne mbir mi ndigal la bu jóge ci yàlla su boobaa sami'na wa ata'na rek wa ca topp su dee mbir mi daa jóge ci yonenti yàlla ca lu jóge ci yonenti yàlla ca yàlla la jóge ndax suñu borom moo garanti ne laa yantiqu anil hawa du wax ci bànneexu bakkanam lépp loo dégg ñu ne yonenti yàlla tere na ko xamal na yàllaa ko tere loo dégg yonenti yàlla digle na ko xamal na yàllaa ko digle mu ne su boobaa amatoo droit di jéem a tànn te it non seulement amatoo droit jéem a tànn waaye da nga ko war a nangu ak xol boo xam ne nii xol bu wommatu la te loolu yàlla ngi ñu koy wax suratu nisa di wax yonent bi alayhi salaam ne ko fala wa rabbika la yu'minuun xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu taslima maa ngi lay waatal ne ñii naan gëm nañu gëmaguñu lu dul problème bu ñu am dañuy laaj lan la ca sunna wax gannaaw ba ñu bañ a am benn xat-xat ci li nga xam ne yaa ko atte ñu jébbalu ak jébbalu te loolu mbokk jullit da ngay gis ma nga commencé ca palais de justice ca fa ñuy attee crime ya ba baa ci biir kër ya fa ñuy attee miraas ya fa ñuy attee attee sëy yooyu yépp da ngay gis yàlla ak yonent bi àdduna ci daganul ci jullit ñi abadan ñu jël atteb yàlla di ko remplacer atteb keneen kum mën a doon doonte ne dañ koy tudde atteb peuple ñuy tudde démocratie le pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple loolu yéefiri tubaab yi ñu ñu ko jàngal amma l'islam li mu ñu jàngal mooy peuple bi yàllaa ko moom loi yi yàlla ko moom loi yàlla yi lañu war a jël atte ko ci peuple bu yàlla bi sunu borom nag ne kuy hésité di seet danaa defam duma def ba muy yàlla ak yeneen ci yàlla day kooku réer na réer goo xam ne nii réer gu leer la loolu mbokk nekk am gannaaw ba suñu borom ñëw ci benn histoire bu xawoon a tiis ci dundu gi leen ci bi sallallahu alayhi wa sallam mbir ba mooy lan yeneen ci mi am na koo xam ne da koo doomoo woon te ñu jàng ko ci gannaaw muy zaydu ibnul xaaris sunu borom ne maa ko baaxe te baaxe gu ko yàlla baaxe mooy dugal ko ci biir lislaam comme nim ñu baaxee ñun ñépp dugal ñu ci lislaam yal na yàlla faat ñu ci lislaam yàlla baaxe na ko mu dugg ci lislaam waaye it yow it nga baaxe ko daal di koy goreel gannaaw ba mu nekkee jaam sunu yonent alayhi salaam dem ci Zeynab bintu Jahsh nga xam ne doomu bàjjinu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam Umayma ibnu Abi Talib ah ñëw ni da koo bëgg pour soxna ñu ne ko ah koo ko bëggal soxna mu ne Zaydu ibnu Xaarisa soxna si ne déet loolu du ko def da ngay gis kii nga xam ne mooy magam ja di Abdullah ibn Jahsh ki nga xam ne ndaw ñi topp football yi am Amérique ak Europe xam joueurs yi xam seeni xaj ak xam seeni lépp xam nañ ko ca ñoom ak ne xool ñu xam ndawi sahaaba boobu di Abdullah ibn Jahsh ak taxawaayam ci Uhud almuhim ñu ne daal waaye mu yàlla yónni ñun nag ak famille bi ñu bokk kii nga xam ne mooy loola fi tudde ngàlloo la rek mooy ab jaam la boo xam ne bu ñu goreel la nan lañ koy mayee sunu doom yonent bi alayhi salaam ne man de gërëm naa ko pour mu nekk la nga xam ne mooy borom këram ah sunu borom it yàlla subhanahu wa taala wàcce ay aaya ne du dagan julit yàlla ak yonentam am lu ñu tànn ñoom ñuy tànn leneen ñu ne ah kon kay d'accord nañu zaydu jël zeynab léegi xamal ne zayd boobu it moom kese la yàlla tudd turam ci alquran ke sahaaba yépp zaydu jël zeynab daa di nekk ak moom ba ñu nekkee sëy ba neexul ndax soxna si da koo xeet te it wala fi dañ naan jigéen lépp lum la ëppale lu dul yaram bis bu jamono sëppee ko rek dana la ko woon gis ngeen dana la ko woon comme nag ndaw si xam ne ne moom famille bi mu bokk aristocrate yi màkk yi dañ bokk kii ab doxandéem la ila axiri sëy bi daal neexul bés bu nekk coow guddi coow bëccëg zaydu nag ñëw ci sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam ne ko man daal zaynab mi doyle naa ci moom sëkk dama bëgg ñu teqale suñu diggante suñu borom yàlla daa di xamal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bis bu zaydu fasee zaynab takk ko ngiree doomoo gama tere woon ca bopp saar ba gën a doon loo xam ne ba nga ko waxee jëfe nga ko ndax yonent bi alayhi salaam bu yemoon na ci ne ak doomo bu mu fi amati kon ba tey da ngay gis ne képp ko mas a doomoo ñit da nga rus a takkati jabar bu mu bàyyi waaye suñu borom nag mun a ko yaa koy jëkki loolu tax yonent yi ñoo gënoon tar nattu ngi noonu yaa koy jëkki bis bu ko fasee na nga ko jël yonent bi xam ne ne Zayd dana fase Zeynab te xam ne bu ko fasee moo koy jël heure bu zaydu ñëwee ci moom di ko jàmbat rek mu ne ko ragalal yàlla ci téye sa soxna si ndax xam ne conséquences yi nar a juddoo ci loolu te loolu itamit yow nga lawaay yóbbaale ko bu nit ñëw fële ak meram ñëw na la sama soxna nii sama soxna naa sama soxna nii nga ne ko ah kooku de see boo fase ko déedéet mooy ku ñëw ci yow dala jàmbat soxnaam ne ko ittaqillah wa amsik alayka zawjak ragalal yàlla nga téye sa soxna conseiller leen ko loolu min mën na am bu demee ci diw mu conseil ko loolu keneen conseil ko loolu dana tax a muñ su demee ba jëlal boppam décision fase nag nga xam ne moo ko jëlal boppam mais yow bu ko puus ci mu fase soxnaam am sik alayka zawjak léegi sunu borom mu ne ko nag yaa ngi nëbb sa bakkan loo xam ne yàlla dana ko feeñal te yaa ngi ragal nit ñi te yàlla gën a yey ñu ragal ko su ne Aysa mu ne su doon yonenti yàlla bi li yàlla wàcc ci moom alquran am na benn aay bu mu ci doon nëbb kon aay bi lay doon aay bi ko yàlla naan yaa ngi ragal nit ñi te yàlla gën a yey ñu ragal ko sunu borom dogal sëy ba mat na un an Zaydu ñëw insisté daal di koy fase léegi fase na ko bim ko fasee ñu dem ba iddaam jeex sunu borom ne yonenti bi alayhi salaam demal nga jël ko ngiree ñépp ñi fi doomoo ay doom ñu xam ne doomoo googu folleeku na et que même bu ñu amoon jabar bàyyi ko sax am nañ droit jël ko su dee ne ñooñu am nañu jeexal nañ ci ñoom la nga xam ne mooy seen sawxa te mbiri yàlla lu ñuy def la mbokko keroog dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Zayd ibnu Haarisa la yónni ci boppam moo ñëw ci Zaynab nee na bi ma yonent bi waxee ne da koy boole ci ay soxnaam bi ma ko gisee dama ko rus màggal ko ba mënatumaa jàkkaarloo ak moom ba ko gis nga saxaaba yi ni meloon daal di ñëw bi ma ñëwee ma nuyu ko woon ko gannaaw ne ko Zaynab dégal yàlla sant na yonent yàlla bi ci mu jël la def la ngay soxnaam gis ngeen donte ne ne mbokk loolu lañ cey jëkke dégg mooy gis nga nangu dogalu yàlla ni mu baaxee ndax Zeynab ak sœur ak frère am bi bu doon la yonent bi digle woon ne nañ ko may Zayd dañoo bañoon rek ba tudd ca naaj ba kon ndax Zaynab boobu dana mujj nekk soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déedéet mais gis nga bañu nangoon ndogalu yàlla yàlla wëlbati loolu defal loolu xéewal ñeel leen ci même histoire bi boo demoon ko mel ne imam Ahmad dana koy nettali benn sahaabi bu ñuy tudde Julayb nekkoon waaju li waxe gaa yi tudde yambartey rek waaju doy waar daal yoo xam ni daal itteem bëriwul ci àdduna xamul lu bëri mu ñëw na yonent bi alayhi salaam waaw yonent bi wax ci waay man maa ngi bëgg soxna fu ma dem ñaan soxna gaa yi bañ yonent bi ne ko ah mu ne waaw yonent bi waaw baax na dem ci benn kër waa ansaar ne leen man de dama bëggoon ngeen may juleebu seen doom bu jigéen bi ñu ne ko ah yu mu yar yu nu juleebu kooku nga xam ne nii jigéen ñeeg ndaw ñeeg ñëpp a ko yab ah yu mu yàlla yéen kooku nag dëgg dëgg seetal ñu keneen waaye mënuñu ko may suñu doom soxna si mooy jànq bi nga xam ne jànq jëmb seen kër yi xamuñu ci woon lu dul alquran am déet daa di génn ne ko ah papa xanaa déggoo aay bi yàlla wax suratul ahzab te mooy yeyul ci julit yeneen ci yàlla bëgg dara ñu am luñ cay sànn bàyyi leen mu ma sëy ak moom ñu ne ko ah yaay sëy bu dee d'accord nga kay alhamdulilah ñu may ko juley bi yàgg biñ ko mayee juley bu yonente bi alayhi salaam takk sëy bi daal di ne yàlla na yàlla barkeel sëy bi tegguñu ci dara juley bu boobu ñu doon tuddee yambar xare Uhud ñëw ñu gis ko mu dem dugg ci biir xare bi di xeex di xeex ba xare bi jeex gaa yi xool naan am na ko manqué am na ko manqué ba ñu ah non ñun yaakaaroon ñépp daal léegi gis nañu leen ñii dee ñii dund yeneen tamit déet am na ko ma gisagul de ñu ne ko kan mun a julee bu ñu ne ko wax nga dëgg gaa yi dugg ci xur yi di xool ba gis ko mi ngi tëdd benn place rey fa juróom-ñaari nit ñu doo koo rey gaa yi yambar boobu du jàmbaare waaye gis ngeen soxna soosee da ngay gis ne lan jële woon ca xare ba ñu jox ko soxna si ila axiri yonent bi ñaanal ko ñu ne demoon na ba mujj ki ëpp alal ci madina ci jigéen ñi soxna soosu ca la bokk ngir nangu gim nanguloon dogali yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee mbokk yonent boobu nekkati fi waaye ay xadis mi ngi nii ñu tiim képp koo xam ne nii mooy na ko réer na ku ko nangu ci yàlla kese tax ca naqari sa xol waaye nga nangu ko ci yàlla kese tax da ngay gis ne jàmm dong nga moo ciy mujj Cheikh Ousmane. suñ borom mu ne maa kaana ala nabi nekkul di yell bi ñeel yonent bi min xarajin ci benn xat-xat fii ma farada allahu lahu ca la nga xam ne yàllaa ko faratal ñeel ko sunnat allahi fi lladina xalaw min qablu lii mooy sunna yàlla te ña jiitu te ña wéyoon jiitu woon wa kaana amrullah dafa nekk nag mbir yàlla qadran maqdura di dogal boo xam ne bu ñu dogal la yeme na ko alladina yuballighuuna risalaati llah ñi nga xam ne ñooy jottali lii di lettre yàlla yi wa yaxshawnahu di ragal yàlla wala yaxshawna ahadan illa allah ca ragaluñu kenn ku dul yàlla wa kafa billahi xasiba te doy na yàlla rek ci rek la ay jaamam maa kaana muhammadun nekkul mukk yonenti muhammad aba ahadin min rijaalikum muy bàyyi kenn ci seen góor yi walakin rasul allah waaye mooy yonenti yàlla ba wa xaatama nabiyin te it mooy ka tëjoon mboolem yonenti ya wa kaana amru wa kaana allahu bi kulli shay'in alima yàlla day bépp mbir mooy ka nga xam ne mooy aji ka ko xam yaa ayuha alladina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm uzkuru llaha zikran kasira day leen tudd yàlla tudd gu bëree bëri wa sabbixuhu bukratan wa asila day leen ko sabbal ci suba ya ak ca ngoon ya huwa alladi yusalli alaykum mooy kay julli ñeel ci ci yéen wa malaikatuhu mak malaakaam li yuxrijakum min azulumat ngir mu génn leen ca lëndëm ya ila nuur yóbbu leen ca leeram ga wa kaana bil muminina rahima te nekk na ci jullit ñi ñu am ku am yërmande ci ñoom mi ngi noonu mbokk piis boobu dogal bi yàlla dogal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom nee na yonent yellul yàlla dogal muy am lu muy ñàkk def ci xat-xat waaye mbokk xoolal li ñu yàlla nattoo tey maa ngi dégg kilifa gu mag ci Sénégal mbooloo wër ko télévision rajo wër ko mu ne moom maamam seen sëriñ yàlla da ko defal ak mbaa yàlla lu ko neex def yàlla da ko baddil lu ko neex def mbir mi yim ma lool balay jeexal mu teg ca na yàlla baddil na ko baddil mboolem ñi ko topp képp ku ko topp gëm ko goreel nañ la boyal nañ la lu la neex def mbokk jullit mbir moomu neex na lool yomb na lool waaye neex na ci nopp yomb na ci lëmmiñ waaye aka safaanoog dëgg mbokk yàlla musul baddil ab ab ab yonent ak kudul yonent yàlla subhanahu wa taala dafa bind mbindaa fan yi pour ñu jaamu ko jaamu googu da leen a sant ñu jaamu ko ba dee dikkal leen ci yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ba baa muy laqoo suuf amul benn santaane yàlla boo xam ne taxawu na mu ne leen lii kat man nekkatul lu ma ko def lu dul loo xam ne nii mutul benn wala ñaar yuñ ko jagleel moom ci boppam daan ci ñëw léegi te fexe ko yàlla jagleel la ci wàllu soxna yi la ko xañ leneen lu may jullit nii waaye amma koo xam ne yegg na ci yàlla ba yàlla subhanahu wa taala jox ko léegi carte blanche ne ko lu la neex defal loolee mbokk jullit nañu xam ne amul ci ku la ko bëgg a gëmloo ne la yàlla defal na la ko mooy ki la bëgg a alak yóbbu la sawara suñu borom yàlla mu ne yellul ci yeneen ci yàlla mu am benn xat-xat ci loo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo koy faratal ci moom te nii ma ko santaane laa ko santaane te ñi nga xam ne ñoo jiitu woon yàlla may dogal lu ko neex ci ay jaamam yàllay natt lu ko neex ci ay jaamam te loolu itamit mbokk nañu xam ne tamit li yàlla araamalul yow jullit bu ko critiqué bu ko araamal masalante ji ab jigéen a ngi nii jëkkëram dee na kenn ji na ba quatre mois dix jours am jeex bu sëyee yoonu kenn newu ci yàlla nattoon quatre mois dix jours léeg-léeg nga gis ku ko def sëy nit ñi dal ci kawam moom yàkkamti woon ne lii kaza wa kaza mais déedéet sëy na def na la ko yàlla santoon léegi yoonu kenn nekku ci yàlla nattoon loolu def na ko jeex na leneen lu mën a doon ci loolu lay doon borom boobu nag ne yeneen ci yàlla bi yaa ngi nëbb li me ne la da ngaa war a takk Zaynab feeñal ko gannaaw ba nag la yàlla tagg ñi nga xam ne la yàlla wax dañ koy wax ci duñ ci ragal kenn alazina yuballiguna risalati allah bokk yàlla dafa yónnee ci jaamam yi ay leetar yii naan defal leen yii naan bàyyi leen yii naan gëm leen yii dañuy nettali xabaar yi ñu fi jaaroon yeneen ci yàlla dafa jot ci li lépp ba pare na nag jottali leen ma ballihu an nii lépp loo xam ci sunna yonent bi muy diine ji lépp da nga ko war a jottali te bañ caa ragal kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala loolu mbokk mi ngi noonu sunu borom yàlla mu ne nag doy na ci yàlla muy aji réglé ndax yàlla moo ne yonentam ay yow yonenti yàlla bi balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam tafal fa ma ballaghta risalata jox naa la cent mbir masalan cent yóbbante yoo war a jox sa xeet soo joxe woon quatre-vingt-dix-neuf yàq ñàkk a joxe lépp a yem am déet mbokk mi ngi noonu te yi boo jëloon benn waaye jël enveloppe bu cent mille ko demal joxal ma ko ma sàmba mu dem ba ci yoon bi teqi cinquante mille yi di dañ naan truand la day akay truand la mu dem ba ci yoon bi teq benn cinq mille lu ñuy wax truand la bu teqee benn mille franc lu ñuy wax truand la kon kañ lay doon ko jub mooy lañ ko joxaloo mu joxaloo ko rek am déet noonu la moo tax suñu borom ne ko fa in lam tafal ay boo joxewul lépp fa ma ballaxta yàqu joxewul yéen a yem naka noonu it mbokk waa ji jàng diine ci di ko wax naka wax rek ci yàlla tax na wax lii la yàlla wax loolu bu dee nay day tax ñu critique ko ci parce que moom defu ko day tax ñu dal ko ci wala day tax ñu mere ko ci wala day tax ñu def ko ci loolu lépp suñu borom yàlla nee na ragalal yàlla ci bañ a ragal doomu aadama yi borom boobu subhanahu wa taala nag ne yeneen ci yàlla muhammad day du bàyyi kenn ci yéen kon ma ngay feddali la mu waxoon ne ak doomu amul te yeneen ci maa ngi ni amul bàyyi kenn min rijaalikum te ar rijal su ko arab de wax mooy góor gu ma gu majeur mooy ar rajul góor gu majeur ki nga xam ne moom majeur gu lañ koy tudde ay gulaam ak wala atfal ak wala yu demee noonu waaye dañ ne rijal rajul mi nga jóge ci rijali mooy koo xam ne ay tànkam dëgër na ba mën naa yenu mën naa daw mën naa kasa ay yonent bi amul benn koo xam ne moo ko jur ko majeur waaye mooy xaatama nabiyin aka nee xool ñii ñëwaat ne yonent ci yàlla muhammad kat moo judduwaat Sénégal aka nee xool mu dund ba dee am doom yu jigéen rek ba ñu am doom yu góor waaye doomam yu góor yaa ngi fii te yàlla nee na yonent ci yàlla bi amul doom yu góor yu yoo xam ne yu majeur lañu loolu muy benn mu ne ma mooy xaatama nabiyin mooy ki mujjoon ci yonent yi léeg-léeg nga dégg ñu naan mooy xaatamu nabiyin ay mooy la leen di taaral comme ab jaaro mooy taaral yonent yi waaye mbokk loolu amul sunna mooy firi alquran yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne sama gannaaw dina ñëw salaasuuna kazzaabuun kulluhum yazamu annahu nabi wala nabiya baadi sama gannaaw fanweeri fenkat daa ñëw sama gannaaw ku nekk jàpp ne moom yonent la waaye yonent amul sama gannaaw yonent amul sama gannaaw fanweer yooyu xam naa ne juróom-ñaar yi ñoom feeñ nañ Sénégal mi ngi noonu ndax dem nañ ba am ci sax yonent bu jigéen gis ngeen fanweer yoo xam ne balaa àdduna tukki ñoom ñëpp dañ jàpp ne yonent lañu waaye yonent amul sama gannaaw yéen ñi dégg arab li borom dafa yonent def ne laa nabiya yonent amul am na benn waay bu ma sa dëgër fit ba jóg ne man yonent laa ñu ne ko foo ko teg mu ne man maa yonent yàlla laa ndax ndax Muhammad suñu yonent leen woon laa nabi baadi ay laa yonent la bu ñëw sama gannaaw maa yonent yàlla laa gis ngeen ala ku ah di ñii ngi ñëw ne ñoo yonent yàlla Isa mbooloo topp leen ñi ngi am ay château ki katkat kenn daggee sole ne moom it mooy mi ngi noonu yëmbal gisoon naa fa koo xam ne ne ma yonent yàlla Moussa mi ngi noonu ah mbooloo topp ko wallaay luy caaxaan ñi xam yëmbal xam nañ ko yonent yàlla Moussa mi ngi njool naay si kaw xees nee na mooy yonent yàlla Moussa bu génnee mbooloo topp ko bëri yaa ngi dégg ala kulli xaal moo ko Sénégal lu neex waay wax mbuur gi am na yonent yàlla Souleymane xamu Ismaïl ma nga mbuur yaa ngi dégg unité douze gi dafa amul mbooloo mais yonent yàlla am na bu feeñoon te waa ji cosaanam mu usinu xaw ma ban yonent la déclaré ti woon mi ngi noonu Sénégal moom foog naa trente yee moom ah bu ñu amul juróom-ñaare it dana ma jaaxal gis ngeen ala kulli xaal mbokk yonent yàlla Muhammad mooy xaatama nabiyin mooy ki yàlla mujjoon a yónni dañ gaa yi bañ demee ba xam ne jël ah Moodu Seck mais na yonent ba bees la gars yi dañu daan déedéet alxuraan nee na yonent bi yàlla Muhammad mooy xaatuma nabiyin ñu ne waaw kon nu ñuy def ñu ne nañ na kon Muhammad mooy dellu si ca mbokkoo gis ngeen waa ji jóg ne Samba Ndiaye yonent ba bees la kooku lam wax moo gën a woyof ki ne Muhammad alayhi salaam dellu si waat na mooy Omar Joxaane mais yaa ngi dégg parce que kii moom daf na Samba Ndiaye yonent bu bees la créé na d'accord yonent bu bees kee nag non seulement nee na Omar Joxaane yonent la muy faute bu grave ba pare moo ne mooy yonent yàlla Muhammad encore muy deuxième faute bu grave xam nga ndax nit ñi comprendre nañ li ma wax mi ngi noonu wallahi ñu créé woon yonent boo xam ne dañ ne rek yonent yàlla la looloo gën a woyof ñu ne yonent yàlla Muhammad mooy kii ñu ngi noonu ndax loolu double musiba la yoo xam ne yu ñu créé la kon ala kulli xaal bu ngeen gisee ñuy insisté ci aaya bi sunu jamono bi dafa doy waar jamono yi maslaxa la ñu nekk yay gis waa ji créé ay caaxaanam woote ña fa ëpp defe dem gëmuñu ko gëmuñu ko temps yi passé sonn naa lool sama benn jarbaat lool mu naan ma mais non nijaay maa ngi ànd ak ñii waaye man ñii gëw ma leen nangam nangam ma ne ko gëmoo fu la fay wuti yaa ngi dégg yonente bi alei salaam nee na ku nuru nuru ci aw xeet ca ñoom nga bokk yowmal qiyaama donc musiba bi mooy dañuy toog ñu ne waaw représentant kër sëñ diw mi ngi nii représentant kër sëñ diw mi ngi nii ca wallahi li ma mën a waat ku demoon ci sëñ boobu nag ndax yow gëm nga ne ñii di woote yonente yàlla ndax gëm nga ko naan góoma ko waaye nag xam nga ñoo bokk réew mi fokk ñu masla masla boo xam ne da ngay yàq pas-pasu doomu aadama yi loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax ma kaana muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullah wa xaatama nabiyin moom mooy mujjeelu yonent yonent dootul am gannaawam te ba muy dund aswadul ansi génn na ne yàllaa ko yónni dañ koo rey musalimatul kazab génn na yàllaa ko yónni dañ koo rey jaasi sahaaba yi bu doon ñi ngi dund ñoo bëri tey da nga dégg daggoon lañu seen bopp mi ngi noonu ala kulli xaal borom bi subhanahu wa taala ni mooy yàlla day xam ne lépp ay lii nar a xew Sénégal xamoon na ko bu doon tene ne yonent yàlla Muhammad doon na ñëw doon na wàcc ci téeréen bi ne ah xam leen ne balaa àdduna tukki Muhammad alayhi salaam dana ko yónniwaat Sénégal inna allaha wa kaana allaha bi kulli shay'in alima sunu borom yàlla nag mu ne ay yéen jullit ñi dee leen tudd yàlla tudd yàlla gu bari mbokk lépp yàlla limité na ko ci téeréem ba mu des zikrullah ngalla waay del bari zikrullah loo ca gën a bari le gën caa texe doonte ne ne chance bi ci sunu maam yi amoon ñun amatuñ ko tey sunu maam yi mbokk amuñ woon benn programme lu dul liggéey ak jaamu yàlla loolu moo taxoon ba foo leen masaan gis suba ngoon ña nga yor seeni kurus di tudd yàlla mais biñ demee ba yàlla nattuñu télévision yi yàlla nattuñu journaux yi lan ngay gis da ngay romb ay gars ñu ngi toog ci mbedd bi ku nekk yaa ngi yor si journaux kee ngeeg L'Obs kee Pop kee te y'a trente journaux yu génn pendant deux heures de temps waaw kee de daa violé niñ ko jarbaatam bisimilah jàmm kee de moom maam jëla rey ah bisimilah jàmm kee de moom dafa jotul ne kee soo la ah bisimilah jàmm ah te gis ngeen ministre loo xam ne bopp amul bopp amul geen ci la ñuy sëgg yàq ci seen lépp lépp lépp lépp boo paree lan la la jëriñ dara ay temps boobu ñaata aaya nga ci mënoon a jàng temps boobu ñaata subhanallah nga ci waroon a def temps yooyu ñaata istixfaar nga ci mënoon a def su ko defee ngal la waaye ñu góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax uzkurullaha zikran kasira day leen tudd yàlla lu bari rawatina tudd yàlla goo dëppaleeg sunna bokk amul looy def lu dul sunna nee na la nii ngay def bi ngay dugg ci jàkka ji bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahuma iftah li abwaaba rahmatika mi ngi noonu booy demee di lekk waxal bismillah amul booy dem di génn sa kër tawakkaltu ala allah booy yéeg sa oto alhamdulilah li saxalana hada ila axiri mooy foo toll rek sunna nee na li ngay def loolee mooy la gën a màgg ci zikr waaye même bu loolu passé sa làmmiñ bu mu deñ ji tooy ci tudd ci tudd yàlla ak loo mën a tudde yàlla astaghfirullah la subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar allahumma salli ala muhammad ala kulli xaal na nga fexe sa làmmiñ di tooy ci tudd yàlla foo mën a nekk soo bëggee texee yonente bi alayhi salaam mu ne sadaqal mufarridun raw na ña nga xam ne day ñooy ñu néew ña ñu ne ko ah ñooñu mooy ñan yow yàlla yónni mu ne mooy azakirina allaha kasiran wa zakirat ñuy tudd yàlla lu bari ca góor ña tudd yàlla lu bari ca jigéen ña yàlla yombal ko lool man nga dawal di tudd yàlla di togg di tudd yàlla di fóot di tudd yàlla mi ngi noonu borom boobu ne tudd leen yàlla tudd yàlla gu bari te dee leen ko sabbaal suba ak ngoon sabbal googee li ci gën a màgg bokk na ci julli ga ñuy def ci suba ak julli ga ñuy def ca takkusaan te ñu bari firi asilan ba mooy takkusaan donte ne am na ñu koy firi timis am na ñu koy boole takkusaan ba timis ay bu ko waxtaan mooy suba gi asila mooy ngoon ga yépp ba baa yóbbaale timis ak géey almuhim mooy arab bu ko daan wax léeg-léeg du ci jublu sax temps bi waaye mi ngi ci jublu rek matala gi waaye waa ji suba ngoon mu ngi may sonal yaa ngi koy dégg ça ne veut pas dire que ne dafay ñëw suba ñëw ngoon mais dafa sax ci di ma sonal kon bu ko waxtaan wax asila ay suba gi bu leen di fàtte yàlla ngoon gi bu leen di fàtte yàlla fu ngeen toll da leen fàtte da leen fàttali ko yàlla barab bi nag mu ne mooy ki nga xam ne mi ngi julli ci yéen moome ki malaakaam mbokk julli gi yàlla ci jaam mooy tagg gam koy tagg ci kanamu ay malaakaam ca mbokk looloo gën a màgg lépp da ngay gis fi ay milliardaires yi nekk ci réew mi bokk na la leen gën a neex président de la république woo leen palais décoré leen am déet naka noonu nit jaam bi bu nekkee ci jaamu yàlla yàlla da koy tagg ci kanamu malaaka yi bokk nañu jataay bi ñu toog yàlla nañu ko yàlla nangul yonent bi alayhi salaam nee na ay nit duñ toog mukk ci benn néeg ci néegu yàlla bi jël téeréb yàlla di ko jàng lu dul yàlla yu ni malaaka yi ñu wër leen mu yiir leen ak yërmandeem wàcc ci ñoom ak dalam di wax malaaka yi nekk ci moom xool leen sama jaam yi de yi ñu ngi toog bàyyi seen i ittee toog sam néeg di jàng sab téere mbokk loolu tagg wu rëy la mi ngi noonu am nañu bëri dañ koy firi ar rahma waaye sunu borom mu ne alayhim salawatu min rabbihim wa rahma kon as salawat bu bokkul ak rahma kon yàlla dana leen tagg ñu mel noonu yàlla moo leen di tagg ci ay malaakaam gannaaw ba malaaka yi ñu ngi julli ci yéen amma malaaka yi ni ñuy jullee ci jullit ñi mooy dañuy ñaan yàlla jéggal leen yërëm leen allazina yaxmiluuna al arsha wa man xawlaha yusabbixuuna bihamdi rabbihim wa yuminuuna bi wa yastaxfiruuna lilladina amanu rabbana wasita kulla cheyin rahmatan wa ilma kon malaaka yi fi ñu toll dañuy ñaan yàlla jéggal jullit ñi ñaan yàlla yërëmal jullit ñi yàlla mi ngi julli ci yéen ay mi ngi leen di tagg fu ngeen mën a toll yàlla malaaka yaa ngi julli ci yéen ay mi ngi leen di ñaanal jéggal ak yërmaande mi ngi noonu lu tax borom bi mu ne wa kaana bil muminina rahima yàlla it dafay yërëm jullit ñi gannaaw ba mu leen taggee ci kanamu ay malaakaam gannaaw ba dana leen yërëm yal na yàlla boole ñu ci jullit ñooñee looloo tax ngay gis ñuy firi arrahmaani rahim naan arrahmaan mooy kiy firi mooy kiy yërëm mboole mi jaamam waaye arrahim mooy kiy jagleel yërmaane ñi ko ci gëm moo tax mu ne kaana bil muminina rahima moom mooy jagleel arrahim ñeel ñi nga xam ne dañ koo gëm ngi noonu Cheikh Ousmane taxiyatuhum yawma yalqawnahu salaam wa a'adda lahum ajran karima ya يحبونها فأمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا barakallahu fiik suñu borom mu ne taxiyatuhum seen nuyoo day yawma yalqawnahu bis ba ñuy dajeeg seen boroom salaamun mooy jàmm rek ak mucc wa aadda lahum ajran karima ci mi ngi leen di waajal pay boo xam ne bu tedd la yaa ayuha nabiyu ey yow yonent bi inna arsalnaaka shahida ñun day ñun ñoo la yónni ngay aji seede wa mubashira ngay bégalaate wa nazira waaye di xuppaate yéefir yi wa daa'iyan ila allah ngay woote jëme ci yàlla bi iznihi ci ndigalam wa siraajan munira ngay nekk lamp boo xam ne lamp buy leeral la wa bashiril mu'minin nekkal di bégal julit ñi bi anna allaha bi anna lahum ne dana leen ñeel min allahi jóge ci yàlla fadlan kabira lii di ngëneel boo xam ne bu màgg la wala tuti lkafirin bul topp mukk nag yéeféer yi wal munafiqina ak naafiq yi wa da azaahum na nga fekk seeni lor ay baal seeni lor bu ko toppatoo wa tawakkal ala allah ca nga wékk sa mbir yépp ci yàlla wa kafa billahi wakila doy na ci yàlla rek ñuy wakkirloo ay di ko sukkandikoo yaa ayuha allazina amanu ay yéen julit ñi ida nakaxtumul muminat su dee da ngeen a takk ay soxna yu gëm ay yu gëm summa tallaqtumuhunna gannaaw ba ngeen fas fas ngeen fasaleen min qabli an tamasuhunna te fekk laalagu leen leen ay àndagu leen ak ñoom sëy ci lal fama lakum alayhinna nekkul di leen ñeel ci ñoom min iddatin taataduunaha ci benn iddawu boo xam ne dañ koy iddawoo fa mattiuhunna na ngeen leen xéewal wa sarrixuhunna ca ngeen bàyyi leen saraaxan jamila bàyyi gu rafet mi ngi noonu mbokk suñu boroom mi ngi wax julit ñi nga xam ni mi ngi leen sant ñuy tudd yàlla tudd yàlla gu bari mbokk doomu aadama loo yàgg tudd rek day suuxat sa biir xol moo tax suñu borom ni mooy génne jullit ñi ci lëndëm yi jëme leen ci leer amma da ngay gis doomu aadama yu bari di leen yàlla nattoo mooy keneen ku dul yàlla la ñuy tudd lu bari wallahi gisoon naa benn waay boo xam ne sëriñam dana xëy suba def junni ak téeméer ak fukk ak benn jërëjëfe sëñ diw junni téeméer fukk ak benn bés bu nekk loolu mbokk da ngay gis ne day mujj dem ba loolu mooy jaxasoog sa deret jaxasoog sa xol amma julit bi fàttaliku yàlla di bàyyi xel yàlla loolee day leeral xolam ñu ngi noonu moo tax ida zukrillah wajilat qulubuhum seen xol yi yëngu moo borom bi nag nee na ñu mel noonu heure bu dajeeg ñoom yowmal qiyaama seen nuyoo ak seen borom mooy jàmm rek te borom mi ngi ñu koy wax ci yaasin salaamun qawlan min rabbi rahim suñu borom dana bàyyi bu waa àjjana yëpp dëggu mu daal di leen di feeñu nuyu leen te loolu ku ne xam ne ne mbokk lu yéeme lay doon xam nga ne ne cofel gi jaam yi am ci moom donc bu leen nuyoo dina yéeme te moom miñ daan ñaan mu def jàmm su dee moo ñaanal nit ñi jàmm kon jàmm dana sax moo tax jàmm jaluy sax la ba faw mu ne nag mi ngi leen di dégg pay yoo xam ne gu tedd la wax nañ leen ko ci tafsir yi passé pay gu tedd allaaxira rek la am amma àdduna li fi nekk day gën a rab mi ngi noonu ak lu mu mën a doon kullu man alayha fan loolu yàlla subhanahu wa taala dogal day gën a ràpp gën a ràpp gën a ràpp amma biir àjjana lu fa nekk day gën a taaru sunu borom yàlla woowaat yonente bi wax naa la ci bopp saar ba ne la woo na ko ci saar bi juróomi yoon daa dina ko ay yow yonente yàlla bi ñun yàlla ñoo la yónni nga nekk koy seede jullit ñi ëllëg ca wane ne jottali nga leen la ma leen yónni woon looloo tax keroog ba ka sunu borom wàcceelee ca suratu nisa nooy def bis boo xam ne yonente bu nekk daañ ko indi mu seede xeetam wa ji'na bika ala haula'i shahida yow ñu indi la ngay seede sa xeet bi ba ko ibnu masud de jàngal daf na ko xasbuk yonente bi alayhi salaam Abdu ibnu Masud nee na ba mu ne waa yonent bi ne doy na maa ngi gis bët yaa ngi taara ngooñ ndax lu mu xam mooy xam ne ne li ëpp ci xeetam noonu mu leen jottali duñ ko jëfe gis ngeen ca il faut mu seede ne jottali na leen gannaaw ba yónni nañ leen del bégal nit ñi ci aljanna te mbokk jurit mi nga noonu problème bu la mën a dal ci kaw suuf xoolal ca gannaaw loolu gannaaw loolu mooy lu yàgg-yàgg da ngay dee te boo dee ci ngërëmal yàlla àjjana lay xaar sa gaana gi sa kaso bi sa ñàkk say gi sa pauvreté bi sa tumuranke bitim réew bi sa lépp mi su dee yaa ngi muñ muñ gu rafet dundug àdduna lu gàtt la lee mu jeex saxal ci jaamu yàlla wéetalal yàlla àjjana mi ngi lay xaar mubashira moo tax mu lay bégal ci loolu comme da ngay gis ne xale yuñ bégal ci ne boo demee Europe da nga am alal ñi ngi traversé océan bi traversé bal yi gaa yi dóor seen kaw ay miir électrifié loolu lépp mais amul problème nañ fexe ba dugg rek suñ borom yàlla mu ne it yaa ngi yónni naa la ngir nga xupp yéeféer yi te leen lu ngeen mën a nekk ci noos sawara moo leen di xaar waaye yónni naa la it nga woote jëme ci yàlla te mbokk wootekat dafa war a woote jëme ci yàlla malheureusement li ëpp ci nit yi tey dañuy woote jëme seen maam te woote jëme sa maam muy woote jëme sa bopp ndax intérêt ba ciy juddoo sa maam fekkewu ko waaye fii ngay gis gaa yu naan waaw ami ngi noonu bàmmeel yoo xam ne nii ñoom ñooy yor kër yi seen gannaaw bokk loolu mooy dañoo woote jëme ci ñoom rek waaye ki nga woo jëme ci yàlla du dem mukk ci bàmmeel di jël alal di ko fa sànni ndax alal du bàmmeel du place am am déet su ko defee kon daa'ir ila allah del woote jëme ci yàlla di wax nit ñi yàlla nee na yonent ci yàlla nee na heure boo wootee jëme ci yow alko nga kala wuy si alko nga yal na yàlla dokk dolli wér suñu mbokk Abu Tahir Demba Diop nee na ab sëriñ daa war a yor jukkoy alkaati alkaati day taxaw ci tali bi naan gaa yi jàll leen am déet jàll leen mi ngi noonu waaye alkaati bu taxaw ci digg tali bi ne gaa yi kaay leen ci man ah du ko nettali chauffeur ba ko defit boo musul kaso lay fanaan yi am déet kon mbokk mi ngi noonu daa yéen ila allah wootee leen jëme ci yàlla loolu laa la yónnee doonte ne it def naa la nga nekk siraajan munira nga woote jëme ci yàlla bi isni ci ndigalam siraajan munira mbokk sunu yonente alayhi salaam yàlla moo ko méngaleeg jant mi ngi noonu wax na ne moo def ci kaw asamaan siraajan munira waaye ak njubam dafa leer mu ne gaa yi teg naa leen ci yoon boo xam ne almahajjati albayda layluha ka nahaariha laa yazigu anha illa halik teg naa leen ci yoon bu leer xall wu yaatu jaar fa guddee jaar fa bëccëg a yem ku nar a alku rek moo ci moo ci bañ a jaar te mbokk yonent bi lim ñu tegaloon mooy nañ jaamu yàlla bañ ko bokkaaleeg dara nañ jàng diina luñ ca xam ñu jëfe ko jeex na ñun ñëpp ñu jublu ci yàlla jalla wa ala daa'iyan ila allah ni ngi noonu wa siraajin munira borom boobu nag subhanahu wa taala ni bégalal jullit yi la gëm ne ngëneel yu rëy mi ngi leen di xaar ci yàlla bégalal jullit yi la gëm ne ngëneel yu rëy mi ngi leen di xaar ci yàlla te mooy nguur gu rëy mi ngi leen di xaar dund gu dul jeex mi ngi leen di xaar ci seen borom amma naafiq yi ak yéefir yi nga xam ne ñi ngi sax di la galgal ngal la waay ñooñu bu leen ittewoo bu leen tapp bu leen ittewoo na nga fàtte seen coono yi ñu lay teg te nga wékku ci sa boroom te xam ne yàlla doy na sëkk ci ku ñuy wékk ku ñuy wàkkirloo te mbokk jullit mi nga noonu yàllaa koy doy ci lépp suñ boroom yàlla bàyyi loolu daa di woowaat jullit ñi ca mbokk borom bi dañuy jàngal ne alquran aw dundin la ñëwul pour nekk benn programme comme armée masalan militaire bi dañ koo tàggat pour mu nekk armée mu am discipline pour nu muy def ba mën a guerre mën a xeex am naa diine l'islam daa ëmb lépp ci sa wàllu dund moo tax suñu borom gis nga bi mu jógee ci loolu mu ñëw directement ci wàllu sëy mu ne yéen jullit ñi bu dee da ngeen a takk soxna nga takk soxna bi avant ngeen di ànd ci lal nga fase ko su boobaa idde amul foofu xam nga soxna boo ko takkoon ngeen ànd benn yoon ci lal su boobaa même boo ko fase dafay iddewu ñetti weer wala ñetti baax bu dee koy gis baax doog a mën a sëy am naa kii moom may nañ ko soxna si mosu ñoo bokk lal mu xëy xëy fase ko fam seedee fase gi ñooñu seede fase gi mën nañoo seede ñu may ko keneen léegi léegi ci jotaay bi ndax soxna si du iddewu loolu nag bokkul ak bu waa ji dee woon bu doon waa ji dañ koo may soxna mu dee ci musul bokk ak moom lan su boobaa moog yeneen soxna yépp a yem dafay tinji ca dafay donn ne ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala mu ne kon bu dee loolu am na na ngeen leen jël ci seen alal loo xam ne da ngeen leen ko ci jox bànneexal leen ko ci te fase leen fase bu rafet jàngoon nañ ko démb yow yonente bi soxna yi buñ bëggee àdduna ne leen kaay leen ma jox leen alal wa usarrihkunna sarahan jamila te it jàng nañ suñu borom ne yéen jullit it bu ngeen dee fase na ngeen fase fase bu rafet te mbokk jullit yàllay dogal sëy ñu dema dema dem ba yàlla dogal sëy bi munte wéy amul benn problème nañ ko tas waaye buñ koy tas nañ ko tas tasin bu rafet ñu ngi noonu bari nañu dema dema dem ba yëg na mën nañu sax àndaat waaye wax yu ñaaw ya ñu waxoon ca tas ga tax ba mënatuñu àndaat loolu mi ngi noonu wala même bu ngeen àndaatee àndaan ngeen waaye fekk ne waxoon nga wax yu ñaaw ba pare loo xam ne ku nekk mi ngi koy jàpp sa biir xol ni ngi noonu ala kulli xaal sunu borom yàlla kon loolu la wax ci ci wàllu googu lu dul ne nag liñ ci dolli rek mooy bu doon te ne ne yow da nga koo diggoon alal boo koy jox su boobaa genn wàllu alal ja moo ko moom soxna si da nga koo takk ne ko dinaa la jox cent mille wala nga jox ko cent mille nga wëlbatu ko fase ko ci musuleen a sëy cinquante mille yi moom moo ko moom lu dul ne dañ la ko baal waaye ak xam la nga jox ko cinquante mille maadaama joxoon nga ko ko wala nga tuddal ko ko amaa nag bu dee mosoo ko dig benn can su boobaa yaay seet dara rek teg ci loxoom bil ma'ruf mi ngi noonu Cheikh Ousmane sunu borom kon mu ne waat yaa ayuha nabiyu ey yow yonent bi inna ahlalna laka azwaajak ñun de daganal nañ ñel la say soxna allaati aatayta ujurahunna yi nga xam ne jox nga leen seen fay wa ma malakat yaminuk ak lépp loo xam ne moom na ko sa ndeyjoor muy say jaam mimma afa allahu alayk ci li yàlla delloo si ci yow muy ay ngañaay wa banaati ammik ak sa doomi bay tax yi wa banaati ammatik ak sa doomi bàjjan ya wa banaati xaalik ak sa doomi nijaay yi wa banaati xaalaatik ak sa doomi tante ya allati haajar na maak ñoo ñi nga xam ne gàddaay nañ ànd ak yow wa mraatan mu'mina ak bépp jigéen bu gëm yàlla in wahabat nafsaha linnabi su mayee bakkanam ba kii di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam in arada nabi su dee yonent bi bëgg na an yastankihaha ci di takk soxna soosee loolu nag moom xaalisatan laka min dunil muminin loolu yow dong lañ ko jagleel julit ñi bokkuñu ca qad alimna ma faradna alayhim fi azwajihim ndax ñooñu xam nañ lañ farataal ci ñoom ci seeni soxna wa ma malakat aymanukum aymanuhum ak la nga xam ne moom na ko seeni ndeyjoor muy seeni jaam li kay laa yakuna alayka xaraj ngiree mu bañ a nekk ci yow benn xat-xat wa kaana allahu gafuran rahima ah yàlla day nekk na koo xam ne ni kuy jéggalaate la koo xam ne ni kuy yërëmaate la mi ngi noonu mbokk sunu borom woowaat na ab yonentam ne ko daganal nañ ci yow soxna yi nga xam ne yaa leen tànn jox leen ay can muy ay jàmbur te loolu it mbokk mu lay won ni islaam du d'accord ci sëy boo xam ne góor ak jigéen dañ ne nañu ànd waaye can du ca am fokk mu am nuñ joxe ci can ak lum néew néew comme la yonent bi alayhi salaam waxoon waa ji demal nga seet même bu doon ab jaaroo nga am sax gannaaw ba waa ji amul dara mu dog ko koo may ca lam mokkal ca alxuraan pour mu jàngal ko ko kon ñu ngi noonu ñaareel bi mu ne ko daganal naa ci yow mboolem jaam ya nga ga ya nga am ca guerre ba ci jamono biñ daan xeex di jàpp ay jaam ca guerre ba da ngay gis ne jaam yooyu islam daganal la jullit bu ci moom ab jaam mën nga ànd ak moom la ngay ànd ak sa soxna mu ne ko it sa doomi bàjjen yi ak sa doomi nijaay yi ak sa doomi bàyyi tax yi sa doomi tante yi ñi ci gàddaayu ànd ak yow dagan na nga takk leen te it xam nga suñ borom booba daf ne waxoon walladina amanu walam yuhaajiru ma lakum min wilayatihim min shay'in hatta yuhaajiru dafa amoon benn période yeneen suñu borom ne képp ku gàddaayul séqu leen ak fiitante ci dara donte ne it aaya bi it ñëw na di dàq ak yeneen aaya yi ko jiitu la nga xam ne yahud yi gëmoon nañ ko bokk yahud yi comme ñoom dañu yàgg doy waar ci seen diine xam nga lu ñu daan bàyyi ci nit ki mooy ki nga bokkal ndey wala baay kese waaye dañuy takk seen doomu frère bu ñu bokkal ndey ak baay dañuy takk seen jarbaatu lenqe koo xam ne seen sœur bu ñu bokkal ndey ak baay moo ko jur dañ koy takk te loolu moom nekk na lënt ci bopp sénégalais yi ñu ngi noonu nekk na lënt ci bopp sénégalais yi ndax li ñuy naan jigéen ñi di wax seeni borom kër nijaay ñu bëri dañ jàpp ne jarbaat araamul ñu ngi noonu ba man mii am na ku ma ko laaj jàpp ne jarbaat moom araamul waaye mbokk loolu da ngay gis ne abadan amul ci lislaam xaraam na nit ki boo xisee ba ne maak moom rek xaraam na nga takk doomam maa ngi ma bokk bàyyi mboolem lu mu jur ci doom ak sët bay ilaa yu mu diin amatoo droit takk ko maa ngi moom ma bokk ndey mboolum lu mu jur ci doom ak sët bi ilaa yu mu diin amatoo droit takk ko loolu kon yahudi ñoom daaw ñu def loolu ñoom seen kuñ daan bàyyi seen sœur kese lañ daan bàyyi amma seen doomi sœur seen ñoom newu ci amma nasaraan yi ñoom ñu dugg ci beneen wàllu ñoom nasaraan yi ñoom lu ñu daan def mooy koo bokkal maam si aram na seen diggante sa doomu bàjjen yéen a bokk maama sa doomu nijaay yéen a bokk maama koo bokkal maam si araam na seen diggante islam da ko jekk da daan taxaw ci seen digg suñ borom ne jaal naa ko ummatan wasata bi mu ñëwee dàq na la yahud yi doon def te muy séy sa jarbaat mu ne déedéet bu kenn séy jarbaatam bu kenn séy doomu frère am waaye dàq la nasara ñi doon def ca nga xam ne koo bokkal maam doo séy moom ah kay ki sa bàyyi ki sa ba ba ki nga xam ne seen bàyyi ñaari bàyyi bokk benn bàyyi wala bokk ndey ak bàyyi mën ngaa séy ak moom dara niwu ci gis ngeen da ngay gis ne léeg-léeg ñu lay laaj ñaan waaw koo xam ne nii sa yaay ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay ndax mën ngeen a sëy dara néewu ci mi nga noonu bu doon tene ci nasaraan yi nag naan loolu xaraam la mais diine islam dara nekku ci mi ngi noonu su ko defee yaayam moo la xaraam waaye moom moom xaraamu la loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax sunu borom yàlla nag subhanahu wa taala dollu ci yonent bi alayhi salaam ne ko it ñii daganal naa leen ko waaye soxna su ñëw it ne ay yéemi yàlla yooñu dama laa bëgg may sama bopp soo ko bëggee jëlal loolu nag yow rek yaa ko moom de amma bu dee yeneen jullit ñi li yàlla farataal ci ñoom xam nañ ko mbokk li yàlla farataal ci ñoom mooy yàlla nee na mën nañ takk ñaar ñett ñeent amuñu droit passé ñeente soxna li yàlla farataal ci ñoom bala ngaa takk soxna na la ko ay wëliyoom may mu am ñu ko seede waaye jigéen du jógee fële rek may naa la sama bopp comme caaxaankat bi boobu di génn ci rajo télévision yi nee na SMS sax bu la ko sànnee nga d'accord man mën ngeen a ànd fanaan ah bu ngeen dajoon tey ci mbedd mi bëgg naa la bëgg naa la mën ngeen dugg ci chambre d'hôtel bi mbokk kooku la muy def moo gën a bon njaaloo yàlla nañu yàlla musal ci ayam mi ngi noonu parce que dañ naan doomi sëriñ la muy wax yow da nga la naqari mais da lay leer na mbokk ku jàkkaarloog un million de personnes di wax au moins dana am trois cent mille yu la ci gëm mbokk xanaa au moins loolu da ngay la muy yàq kenn xamul nu mu toll su ko defee kon loolu ñu ne ko yonent bi yow rek lañ ko yàlla jagleel donte ne nag gannaaw ba am na ñu fi woote wane ñoo taxaw place yonent bi rek rek Fatou Thiam jóge fële ah sëñ bi dama la bëggoon a dénk saag bu mu laa baax na jàllal ci woon ak bi Marème Ndiaye jóge fële sëñ bi dama la bëggoon dénk saag ba bisimilah jàllal ci woon ak bi mi ngi noonu ba delee quatre-vingt-quinze si gannaaw ba bi waaye mbokk loolu suñuy mbir rek la mbokk sahabatul kiram ba ñu jeex kenn musu ci passé ñeenti jabar ñeenti jabar ca la ñu yem mi ngi noonu te itamit jabar booy takk ay waliyum ñoo la koy may soxna si du dagg fa rek ñu may la ko qad alimna ma faratna alayhim ci la nga xam ne fii azwajihim amma wa ma malakat aymanuhum bu dee seeni jaam moom loolu moom jaam beneen mbir la la ca yonent bi sañ ñépp sañ nañ ko ci sunu borom mu ne lii defal naa la ko ngiree nga bañ a am benn xat-xat ci sa diggante ci wàllu sëy te xam leen ne yàlla kuy jéggalaate la kuy yërëmaate la yal na yàlla jéggal ñu ca yërëm ñu yal nañu yàlla subhanahu wa taala gëmloo sunna ca saxal ñu ca wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ala kulli xaal ñoo xam ne dañ ne yàlla moo ne na ngeen ma xam avant ngeen may jaamu moo tax ñoom ñuy def seen tariqa di jéem a xam yàlla mbokk suñu boroom loolee ay wax la yoo xam ne du xadis bu ñuy saxal la wér ci téere bi yàlla bi suñ borom moo ne faalam annahu laa ilaha illa allah xamal ne laa ilaha illa allah kon fokk nga jàng xam dooga xam lan mooy laa ilaha illa allah suñ borom yàlla dafa am ay asma am ay sifaat am ay ay ay ay ay jëf yu muy jëf yooyu yépp ka ka jàngale mooy yonenti yàlla bi fan la ko jàngale ci alquran ak sunna amma jàngale boobu ci la ñu nekk nii ala kulli xaal loolu mooy jàngale xam yàlla amma xam yàlla boo xam ne ci àll ba ngay dem ñu jox la kurus di la zikkurloo suba ngoon na la da ngay toog tant de jours yoo xam ne doo nelaw loolee mbokk xam seytaane la moo tax boo demee ab xaal dañ naan la gis nga yàlla suñ gisee yàlla dañuy futteeku def yaramu neen ñii di yuuxu suñ demee ba yegg ci yàlla jàpp nañ ne yàlla mooy lépp kon bu la neexee sëyeeg ma sàmbaag ma dembaag ku la neex loolu bokk yooyu moom ay musiba la yoo xam ne dugg na ci suñ biir diine ji donte ne sax yàggu fi waaye ala kulli xaal jullit du jëfandikoo loolu amma passé bu rafet naka lay demee mbokk li rafet day nekk ci maaruuf dëkk bu nekk dafa am nu ñuy fase fase bu rafet su ko defee la ca lislaam tëral moom mooy xal mooy ndaw si boo koy fase xaaral ba mu gis baax ba baaxam set bu ko fase jamonoy règle bu ko fasee fekk ne danga gis baax nga sëy ak moom gannaaw ba ñu daal di woo ñaari seede ñu seedaloo ko ñu fase ko boo ko fasee ba pare nga ne ko toogal ci kër gi mu toog ci kër gi yaa yor dundam yaa yor la nga xam ne bu amul lum sol yaa koy woddu ba baa ñetti weer yi di mat sëkk su ñetti weer yi matee sunu borom mu ne walil mutallaqaati mataan bil maaruf ñu seet lay njëkk ñu jox ko ko bokk na aaday Sénégal su doon da ngaa yor ay soxna néegam nga jagleel ko ko la fa nekk nga may ko ko dañ naan buy dem na jël la nekkoon ci néegam yóbbu loole aaday Sénégal la maaruf la boo xam ni def ko lu baax la donte léeg-léeg nag mu pose problème boo xam ne laaj nañ mu ko fan yi rek benn jeune célibataire ngi nii defar néegam ba mu jekk ah léegi mu dem takk Fatou Thiam indi mu sëy si Fatou Thiam créé lu koy problème mu dem ñu ne dañuy bëb néeg bi yëpp yóbbu yaa ngi dégg suñ benn jeune def nañ ko ko wallaay ñu ne def nem ndaw si ñëw gaare camion buub lépp mu ne tapis sax du ko yóbbu yaa ngi dégg waaye mbokk loolu njuumte la may gi du jóge ci soxna si amul droit bi muy joxe suñu borom mu ne alal muusi qadru wa alal muqtari qadru ku góor ki mooy seet la ko neex ci alal ji mu jël ko jox ko ko mu dem su doon nag comme ni ma la ko waxee amoon néegu boppam moo ko may loolu moo ko jëndal armoire may ko jëndal ko lal may ko loolu moom moo ko moom waaye bu dee néeg bi ñu bokk bu tas amee waa ji mooy xool dama koy jox lal beeg dama koy jox armoire beeg seet la ca xolam toll ak kattanam toll ca mu yëkkati ko jox ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam di commencé léegi waaw waaleykum salaam.
bu fekkee sa jabar ñaari yoon. ba ñetteelu yoon bi nga fas ko mu ne du démb kër gi.
waa ji dafa fase soxnaam ñetti yoon soxna si bi ah.
ñaari yoon la ko fase ñetti yoon bi.
waaw mooy ñett waaw soxna si la waaw ñett kon kay fase na ko ñetti yoon rek waaye waa ji fase na soxna bi ñetti yoon léegi nag soxna bi ni du génn ala kulli xaal mbokk loolu borom xam-xam yi dañ ci am ixtilaaf ci ndax ki fase soxnaam ñetti yoon nga xam ne seen diggante jeex na ndax dana iddewu wala du iddewu ci ci kër gi iddewu moom fokk mu def ko moom balaa see keneen fokk muy iddewu mais ndax day toog ci kër gi wala du toog am na ñoo xam ne dañ ne aha kay day toog ndax yàlla subhanahu wa taala nee na nañ toog ci kër gi xatta yablughal kitaabu ajala ba baa idde bi jeex am na nag ñoo xam ne rawatina ku mel ne Fatima bintu Qays daf daan wax daawul iddewu kër jëkkëram ba ku mel ne Omar daan wax duñ bàyyi waxi jigéen duñ bàyyi téereb yàlla bi ndax wax waxi jigéen mu ne hey li may wax ci téereb yàlla bi la nekk ndax suñu borom mu ne laa tadri la allahu yuhdisu ba'da zalika amra yàlla mën na sos leneen diggante ku góor ak jigéen bi te maadaama fas na ko ñetti yoon kon seen diggante jeex na tàkk loolee kon dañuy gis na mbokk ay ixtilaaf la ci fuqaha yi doonte na mbokk ñun Sénégal ñun premier deuxième troisième la ñu yemele soxla si boo ne ko may naa la sa baat bala ngaa ñëw buub ne lépp dem yoonam yaa ngi dégg te léegi-léeg ay waajurum ñoo naan ko bu fa fanaan waaye mbokk loolu lañu xam ne ak ceddo la jaaduwul su ko defee daal kon fase na ko ñetti yoon dañuy seet yow boo jàppee ne jigéen boo ko fase it yaa ko war a téye bi iddaam jeex su boobaa warul génn waroo ko génne soo jàppee ne comme fase nga ko ñetti yoon amatoo droit islam gàllatu la nga koy yor ah boo soxlaa sa néeg mën nga koo génne mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam
loolu laaj bi bu wax ñu toog ko tey ko dañ mooy àtte ak koo xam ne dafa wóor bi juddoo wala mu saabu dafa woor dog moo ko tey boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne su dee da ko doge sëy ay dafa sëy ak soxnaam bu sëyeeg keneen nag moom def na duubul musiba yaa ngi dégg waaye bu dee dafa sëyeeg soxnaam su boobaa da ngay gis ne ba koor gi passé dafa war a woor ñaari weer yu tegaloo loolu moom ñoom ñépp dëppoo nañ ci léegi nag moom daa ñëw ci ngénte laam restriction balaam dañoo génn ci sortie gi deme noonu mu do tey ko dog kooram su boobaa borom xam-xam yi am nañ ci wuute am na ñu ne day fay bis bi booleeg tuub toroxlu ci yàlla ba baa muy dajeeg moom ndax bis boo dog tey tey ko mënoo ko fay abadan donte ne da nga war bis bi nag am na nag ñoo xam ne dañ ne même bu dogee leneen lu dul sëyit dafa war a war ñaari weer yu tegaloo loolee mbokk moom la ca borom xam-xam yi wax mu lay wane ne kon danger la ci yow jullit nga tey ko dog fekk ne du lor moo dem sa digganteeg yàlla da nga xam ne dëgg-dëgg mënatuma wéy ci koor gi nga dog su boobaa moom dara newu ci mais bu dee benn ngant amul bànneexu lekkal ga nga bëgg a lekk rek a tax nga dog loolee ci bàkkaar yi gën a garaaw la bokk moo gën a garaaw njaaloo moo gën a garaaw naan sàngara ñu ngi noonu waaw mbokk bi waaw waaw ah waaw ñaareelu question mu ne waa ji day woor di lidoo ko ay dem yi mbokk lidoo ko dem yi loolu ay polo yoo xam ne nii jullit wuru ko def ay polo yoo xam ne jullit wuru koo def ab jullit yàlla da koo bind pour mu jaamu yàlla amma po yooyu dem yi yooyu ak caaxaan yooyu da ngay gis ne dafay yàq sa temps fàtte loolu zikrullah ba da ngay gis li ci gaa yi nettali mooy dorog la ci façon dorog yi am déet mooy gaa yi buñ ci me dem ñi di tapp dootuñu ànd ak seen sabo gaa yi caricature di nettali nee nañ góor ga dafa bëgg dem yi nee na mu ngi dem nag jekkuwaa ji muy dem yi tapp tapp doom ji jóge fële na ko bàyyi dawal kër gaa ngay tàkk mu ne déggal waaye nee na kër gaa ngay tàkk de jëlal moom yaa ngi dégg dégg dégg kon kooku àndatul ak sag ak sagoom su ko defee kon mbokk yooyu yëpp da ngay gis ku ko xam te xam ne loolu mi ngi noonu su ko defee yow julit ngal la waay dorog la rek gis nga boo muñoon un lu mat un mois defoo ko rek daal di koy fàtte am leneen loo ko mën a remplacer mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ah waaw Scrabble lay bokk ci yooyu noonu.
scrabble ak dem yéeg bëloo toog tous ces formes de jeu là da ngay gis ne ñun sunu maam yi sax xamuñu ko yëpp tubaab bi ñu ko fi indil mbokk ñun sunu maam yi xamuñu sax yooyu mi ngi noonu waaw bisimilah ñu mujj ci bokk ba la rek waaw musal ñu ci waaw amin waaw amin waaw kon kon loolu moo doon moo doon yëkkati loxo bi waaw amin yal na yàlla musal ci luy jur passé yal na yàlla yokk ñu cofeel ak yërmande diggante ak suñuy soxna te may ñu sëy barkeel yuy continuer bi biir aljanna wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain